waaw victoire bi moom wax dëgg yàlla du eh, torop dëgg yàlla waaw neex ñun xamoon nañ nag tamit day daan dëgg yàlla ndax jàmbaar la wax dëgg te bu ko yàlla fayee xolam rek lu baax rek lay am ndax jambar la wax dëgg yàlla li mu ci làmb ji la ci kër gi ñu ko ñaanal victoire bi rek am nga sa borom kër bu démé ut xaré ah bu ñëwé indaale ndam loo def lu kontan rek ñuy kontan bu baaxa baax di ko ñaanal ndam de yalla nako ko ah? ah bu ñëwé ñun ñëpp dañ koy téru rek comme d'habitude tax yag nañu bégal wax dëgg yalla yag nañu bégal sénégalais day gaaw fàtte rek waye takusan bu nekk bégal nañu ko takusan bu nekk bégal nañu ko dafa délo boom rek ca mboy boy ga waaw ñukoy ñaan rek yalla nako ko jik lan ngay ban ah waa di ko ñaanal rek ndax làmb moom noonu la ñoom ñaar ñëpp ay doomi Sénégal lañu te ñoom ñaan ñëpp dañoo uti ji woon yàlla may ko waaw moom da daan uti yàlla may ko kon tey bu ko yàlla xañee da koy sant yàlla rek ñëpp koy sant yàlla parce que du euh, mbër yëpp ku nekk mës ngaa uti ñàkk waaye ku ñàkk rek doo def lu dul sante ko yàlla suñu borom waa xam ne yàlla mooy maye waa te moo ñu may tey ndam. bay bàll di génn lan nga Wow, ba muy génn. ah wow, wow, wow, wow, wow, wow, kan di génn. wow, wow, wow, wow, ah waaw waaw. waaw wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, waaw waaw waaw waaw waaw waaw dañuy yëg ni rek comme mi ngi dem wow, ndam wow, wow, ñaanal rek di ko ñaanal rek wow, rek wow, yëgoon instant yooyu di ñaan rek wow, ñaani bu baax waaw ndax moom buñ ko ñaanalee rek yaakaar naa dina ko dina ko dal ndax respecté na ay wow, respecté waay juram yi respecté soxnaam ay doomam ñëpp mu jox leen cër kon bu amee bis war a dem ñun ñëpp a ciy jàpp lu ñu mën rek ak lu ñu xam rek dinañ ko def moo tax ñu dar ko topp ko wan ko ne ñoo ngi sa ginnaaw saa yoo gestoo rek yaa ngi ñuy gis ñuy toog ñuy topp sa ginnaaw di ko ñaanal bu baax a baax li mu bëgg li mu séntu yëpp yàlla ci teg loxo